bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin walsalaatu walsalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi yi ñu déglu fii ci rajo seen xarit seen am jàmm seen mbokk imaam ahmadou moxtar kanté moo nekk ci micro bi ngir leen ci ndimbalu sunu borom subhanahu wa bi nga xam ni mooy almustaan Euh, émission bi ngeen ni topp euh, saasu ne te ñu duppee ko addiinu nasiha ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax sunu borom subhanahu wa bi nga xam ni moo ñu may wér ak tal ak baaxee ñu as lëf ci xam-xamu lislaam boo xam ni ci la ñuy tibbee li ñuy laay biir sunu bopp lu jiitu ñu leen ci laay biir di leen nuyu yéen ñëpp fu ngeen mën a nekk ci àddina bi wërngal këpp dañu déglu moo xam Sénégal moo xam bitim réew. te niyoo boobu mënta gën a màgg mënta gën a rafet mënta gën a mat mënta gën a barkeel ñu wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen masawu coono di leen jox seen wàccuwaay di xaq di leen baal xaq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi nga xam ni lu muy sëmbërtal ci seen kaw ci ay wërsëg dañ koy jëfandikoo ci li mu gërëm ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ba bu nattu ñëwee te du ñàkk ci dundu doomu aadama mu baaxee ñu euh, taxawaay bu rafet taxawaay jullit te muy sabrun jamil muñ bu rafet boo xam ni du ànd ak saalit muñ boo xam ne day tax jullit bi bañ a ñaaw njort ci borom bi subhanahu wa taala bañ a am yaakaar bu tas ci moom ba ba muy teggi boobu nattu ñu ngi euh, soññ suñu bopp di leen soññ ci ñu gën a wàccoo ak euh, geste barrière yi ndax feebar bi di Covid 19 mi ngi ci réew mi ba tey donte woon nag war nañu dolli sant suñu borom subhanahu wa taala ndax defal nañu tawfiq balaa ngay xam ne defal nañu tawfiq nga xool ay réew yoo xam ne ñoo ñu ëpp kàttan fop ci koom-koom ak ci ay jumtukaay. <clears throat> ak euh, yu ni mel te tey feebar bi mi ngi fay faagaagal ay bakkan yu bari di fa loofal ñu bari di fa indi coono yu bari kon nañu continuer di euh, sàmmante ak geste barrière yi li ki des ñu bàyyi ko ci yërmande borom bi subhanahu wa <clears throat> su ko defee mbokk yi ñuy déglu balaa ñuy euh, sori ci émission bi duñu mën a ñàkk jaale askanu senegal yëpp waaye jullit yëpp waaye africain yëpp waaye ñëpp ñi nga xam ni xam-xam daf leen ñor ak jàngale euh, ak euh, xeex ngir néew ji doole am seen àq ak lépp lu aju ci loolu te muy kan muy professeur Iba Der Thiam rahmatullahi alayhi yi nga xam ni dellu na ci boroomam subhanahu wa Euh, fan yi ñu génn euh, samedi wala dimanche ñu rob ko fii ci armeeru yoof mu nekkoon kenn ci jëmm yi nga xam ni ku ràññeeku la ci askanu senegal nga xam ni foo demoon ci euh, àddina bi ba tudd ko rek day nekk ndam ci askanu senegal mu nekkoon kon kàngfóore ci xam-xam rawatina ci histoire mbiru taarix fu ñu doon waxtaanee taarix ci àddina bi doon na fa teew te di fa wax loo xam ni ndam lay doon <clears throat> ci askanu Sénégal euh, liggéeyal na lu bari réew mi ca ba mu nekkee ministre ak euh, yeneen taxawaay yoo xam ni doon na ko taxawee ak téere yu bari yu mu bind ci taarixu Sénégal ak Afrique nekkoon na it ndeysaan koo xam ni euh, demoon nañ ba tuddee ko fi député du peuple nga xam ni ndombal tànk boobu mu amoon nekk assemblée nationale. moom la mu gisoon mooy eh, askan bi la fa war a taxawal eh, seen àq doon na ko joxe bu baax a baax ba ñu jox ko boobu tur rahmatullahi alayhi moom professeur Iba Der Thiam mu nekkoon koo xam ni it eh, lislaamam kenn doonu ko woon laam-laame ndax lépp loo xam ne yëgoon na ko ci nit wax wala bind koo mën a doon di jam lislaam di jam alquran di jam yonent sallallahu di jam jullit yi moom it dana yëkkati kat kàddoom yëkkati xalimaam bind tontu la ci xam-xam loo xam ne doo ci mën a teggi dara loolu firnde yi bari na ci kon lislaam ñoroon na ko lool ak défendre lislaam nekkoon na koo xam ni jaamu yàllaam doon na ko woon caaxaane fan yi rek am na koo xam ni Euh, bindkat bu mag la bu siiw ci réew mi mi ngi naan moom de mu doon ànd ak moom di tukki ci avion da koy gis ne waxtu julli bu jotee day julli ci biir avion bi ndax bañ faat waxtu ndeysaan loolu kenn moo ko seedeel fan yi man mii di wax ak yéen jataay bi ma mujjee bokk ak moom toog mu toog ñuy wax jataayu lislaam la parce que boobu benn lël bu ñu defoon institut islamique ñu woote woon fa benn séminaire ci mbiru séntu weer xam ngeen séntu weer Sénégal bari na ay jafe ma demoon këram. àndoon ak eh, Yann Thiam ñu dem fa waxtaan ak moom eh, mu ne dana ñëw bokk ci waxtaan bi ñu indi fa ay borom xam-xam ñuy jàng mbiru astronomie charia ak ñeneen ak ñeneen mu def fa ay waxtaan yu am solo boobu mooy jataay bi mu mujjee toog ak moom fii ci institut islamique ak yeneen ak yeneen ci ay firnde yu wane ni diineem doonu ko woon caaxaane moom professeur Iba Der Thiam rahmatullah aley ba ci fan yi sax ba ci weer yi mu ngi woon ci liggéey bu am solo doon bëgg dajale lépp lu ñu bind ci taarixu Sénégal mu ci doon liggéey moo ak ñeneen ñoo xam ni ñoo ci nekkoon ak moom ay boroom xam-xam kon eh, ci loolu la def dundam kon nag wax dëgg yàlla eh, moom. kon eh, mbokk yi ñuy déglu moom jëmm jooju Iba Der Thiam rahmatullahi alayhi ku ràññeeku woon la ci askanu senegal yàlla na ko sunu borom subhanahu wa taala jéggal mboolem rëcc-rëcc te sëmbërtal ci kawam yërmandeem moom subhanahu wa euh, musal ko ci mbëggulu bàmmeel dugal ko ci aljanna firdaws yi gën a kawe amin ya rabbal alamin mu mel ne balaa ñuy jeexal émission bi dañuy sargal gouvernement bu bees bi ndax xam ngeen ni réew moom bu amul kilifteef eh, daanaka seytaane yilif réew moom moo tax ñàkk kilifteef ci lu mën a doon ca kër ga ba ci eh, état bi lu jara moytu la te lislaam daf ñu koy moytuloo te gis nga réew yi nga xam ni amul ku ko yilif wala ñu koy xëccoo dafay nekk ci fitna ak tuur deret ak yàqu kenn xamul nu mu toll moo tax yenn sala salaam bu ñetti nit àndoon sax danaan na kenn ki nekk amir na kenn ki eh, nekk amir bu ko defee eh, mu mën leen a yilif ñu mën a topp seen yoon eh, ci jàmm nga gis ne ñu ngi ci sant yàlla ndax euh, boo xoolee ni ma la ko waxee réew yi nga xam ni loolu amu fa li fa nekk ci fitna kenn xamul nu mu toll ak nu mel moo tax it ñu ngi ñaanal réew yi nga xam ne dañoo jege te nekk ca élection fitna bañ fa law gisal Côte d'Ivoire gisal Guinée ndax euh, bu fekkee ni jubóowuñ ci élection yi jubóowuñ ci kan moo euh, am ndam ci élection yi fitna lay andi. kon yal na yàlla def tawféex ci réew yooyu ndax réew yooyu suñuy mbokk lañ suñuy eh, dëkkandoor lañ lu fa nekk ci fitna day law ba ñëw ci suñu réew ndax dañoo bari lu ñu séq ba pare dañoo mbokkoo bokk lu bari ci taarix ak ci lu bare bari kon yal na yàlla def tawféex ci réew yooyu def ko sunu réew su ko defee kon ñu ne gouvernement bu bees bi sant yàlla ndax euh, charte bi moo wax ne président moo moom boobu cër tabb gouvernement bu ko defee nag jarul nekk ci ay coow yoo xam ne amul solo charte réew mi moo ko may mu tabb gouvernement mooy seet ku ko doy mu tabb ko ci jox ko ndomb tànk bi nga xam ni jàpp na ni kooku foofu la ko war a féete ci liggéey bi mu war a liggéeyal askan bi kon loolu jarul coow amaa di wax ne lu tax tegul kii fii lu tax mu tekki ndomba tànk kii euh, amul boobu solo ndax cër la bu ko charte réew mi jox te it euh, mbiru nit noonu la demee société bu nekk noonu la demee état bu nekk noonu la demee ka jiite état ba ka jiite mbooloo mi euh, day joxe ay cër day tabb kon nag te nag ku ñu tabb fenn rek mënoon nañ faa tabb keneen. kon nag loolu jarul jarul benn coow nangul président bi cëram ci wàllu boobu su ko defee nag kon ñaan euh, gouvernement bu bees bi lépp loo xam ni naal nañ ko te muy loo xam ne euh, jig na réew mi lu baax la ci réew mi loo xam ni day yéwénal nekkinu askan bi rawatina néew ji doole yi ñu ngi ñaan loolu antu ci ndimbalu borom bi subhanahu wa Euh, di ñaanal wér ak tal ñi nekk ci gouvernement bi ndax ñu taxawee boobu liggéey euh, di leen fàttali nag ne liggéey gouvernement boobu du nguuru de waaye liggéey boo xam ni la dañu ni ko wolof di waxee jaamu soxla askan bi taxaw ci faj soxla askan bi kéem seen kartan seen man-man seen xam-xam loolu mooy sas bi kon sas la alquran sax daf ko tuddee amaana kóllëre kon maanaam dafa war a am benn kóolute boo xam ni moo dox diggante nguur gi ak askan bi alquran di wax ci suratu nisa inna allaha yamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha moom yàlla subhanahu sant na leen fii mi ngi ci jublu bokk na ci kilifa yi ñu toppatoo kóllëre bi dox seen digganteeg eh, ñiñ ko séqal kon ku mel ni imaam al qurtubi nga xam ne ci firikat yu mag a mag yi la bokk kan foori ci firi alquran nee na aay bi bokk na ci aay yi nga xam ni dafay lijjante diggante ki yilif ak ñi yilif kon kóllëre la bu mu war a sàmm kon du pour nguuru du pour noos waaye taxaw ci euh, soxla askan bi ci wàll yëpp ci seen wàllu àdduna ak seen wàllu euh, àllaaxira su ko defee kon yàlla nañu borom bi defal euh, tawfiq ndax gouvernement bu échoué askan bi yëpp la échoué te fi mu nekk ni askan bi soxlawuñu échec ñu ngi nii ci Covid 19 mu indi ñu ay jafe-jafe xale yi gis nga fan yi ñu bëri faatu nañ ci ndox mi ndax bëgg a demaat barsax wala barsa niñ koy waxee ak yeneen yeneen ñu nekk ci réew mi yoo xam ne dañ ko war a saafara kon nag euh, gouvernement bi nañ ko xamee noonu ñu ñaanal leen tawfiq ci lépp loo xam ne naan lañ ko te muy njëriñ ci askan bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.